yal na yàlla fay ko ndax loolu su ko defee Baye Mbaye Donde la ko defal te cofeel dafa foor euh, moom nag wax dëgg yàlla noo bokk waaye ku baax la alaaj dudu léeg-léeg dañuy werante maak moom mu a ma yaa ma gën a tabe ma naan ko déedéet man yow laay roy ci tabe waaye noonu mu la ko defee noonu la koy defale mbokkam yépp yal na yàlla dolli wéram dolli gudd fanam ndax it mbir mu ne day koo xam ni gàllaaj la cay doon bi mu tawatee dama ni ko danga war a jóg yow waroo dem ndax du way yii rek lan la doyee yow gàllaaj nga ci ñun buñ la gisee rek suñu xel day dal fa tabaarakallaahu yal na yàlla guddal fanam dolli wéram ci barke Seydina Muhammad ngeen di ko li ñaan bu baax fa tabaarakallaahu euh, ñu nuyu imaam Daawuda Nger ziyaar ko ndax imaam ku dal la imaam ku baax la te nit ki li mu baax la yëpp soo ko waxee li ko dal ci at mi yaa ko teg waaye nag bum tax nga noppi ndax kuy def lu baax nañ ko wax ba ñëpp dégg ko soo wéetee ñaanal ko yàlla damay faral di wax ni xuloo yépp li ci gën a bon mooy xuloo imaam ndax wa yow mën a doxo kulla inaasin bi imaamihim waaye nag imaam bu nit faatoo imaama lay jullee te ndànk lay wax boo ko tooñee nag mu ni yàlla kii daal dóoral ba muy bëgg dee rek donte moom amewul xol boobu ndax léeg-léeg nit ku ne ni sa xol mel dina feeñ ci sa kanam yàlla na yàlla yàggal la ci suñu kanam nuyu chef du village bi euh, Ousseynou Ousseynou Mbayan ah. Ousseynou Mbeng ñu ngi koy jox ciram moom itam nuyu parrain bi di Serigne Mouhamad Nger Eh, ngeen tàcc ko bu baax nag moom itam wax dëgg yàlla eh, ñëwee nga ni nga toll man bi ngay ñëw sax pour man sëñ Habiba nu bett di ñëw ndax délégation bi yàlla na yàlla fay la ci barki Seydina Muhammad lii ñoom suur wax nañ ma ko mm-hmm. ni ma dañ ko ko bëgg a tudde man leen tudde leen ko ko kay ma ni leen bërki demb rek fi ma jóge dëkk bi ci wetu buudi ngeer malal fa association bu fa nekk ay tiijaan lan ak ay murit président ba tiijaan la pap ngeer la tudd mu ni ñun daal waa murit la pap ngeer la tudd mu ni ñun daal duñ ci woowante ñaari jàngkat dañuy woo Pape Malick mu tiwaawan rek mu jàngal tiijaani jàngal muridi keroog noonu laa ko defe moo tax ba may dugg si ca dëkk ba dugg ca tànt ba fekk waa ji yor micro bi di jàng xasida maam borom Touba ma dugg si rek mu arrêté ko ma ne ko déedéet àggale ko ba mu jeex ngir delloo leen teraanga te ñun teraanga rek moo nu jig nag ndax Seydil Hadji Malick ak Serigne Touba lanu waxante ñoom ñoo ko xam comme xamuñu ko nag ñun ñi xamul nañu rafetal rek moo gën te kat coow li coow li aljana la ñuy xëccoo te aljana jotagul bi ci des it dafa am foo xam ni nit ñi war nañ ci bàyyi xel muy salle d'attente bi muy bàmmeel gaa yi aljana man damay faral di wax ni ñun ñëpp mën nañu dem aljana ndax am na koo xam ni yàlla moom rek la bëgg te bu bis baa lu mu ko wax dana ko def muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye fi problème bi nekk mooy fi ngay jaar mooy bàmmeel bàmmeel nag dafa am ay projecteurs yu fa nekk yoo xam ni du tàkk te julliwoo moo tax ñun jeunesse bi nañu gën a fonk julli xam naa maa ngi jéggulu waruma waxtaan waaye nu fàttelante rek Cheikh Hadji Aziz nee xam ngeen ni julli lu rëy la inda malikina mboolem ibaadaati julley bopp ba dog ga gënul ab bopp bu dogee ab dund dootu fa am fab leen ko suulee ci des yàlla nañ ci yàlla musal xam nga boo dee jaamu yàlla mënoo wax ni li ngay def yàlla nangu na ko waaye jaamu yàlla day dalal xel kon nag nanu gën a góorlu ci suñu boroom ndax bala ñoo wax waxi tariixa nañu wax li nu yàlla sant ba noppi te kenn mënta doon tiijaan te doonoo julit kenn mënta doon murit te doonoo julit kon nanu don ay julit ba noppi fi ne li tiwaan di jige jege ku fi amoon awtiis balaa waa tiwaaw na ñëw balaa sa sëriñ a ñëw man naa sa mbokk murit ma nga dendal moo la gën a jege pour xettali la kon nag nañu bàyyi xel loolu Sénégal yaatuwul nu bokk ndey bokk baay ñi ngi kontaan bu baax a baax a baax maam borom tuuba nee na fa kullu wirdin murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jeylaani maam abdou hadir aw intama li ahmad tijaani sidina cheikh dugg aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum xat an ala sawaabi maam mawdo moom wax ko ci benn bayit ni at turxu kulluha ila arrahmaani muusilatun muslikatun yaa jaani damay koy faral di nettali lu bari dama dem Thiès ca garage ba di defar sama téléphone benn waay gis ma xam nga dama bëgg kafe nag ma ni waa ji xelil ma ci kafe Touba gi waa ji ni ma gis nga caat ñun murid yi ko yor de yaa ngi nii café Touba ngay naan ma ni ko waaw café Touba lay naan mais boo ci deful suukar si doo ko mën a naan mu ni ma luy loolu ma ne ko café gi boo ci deful suukar si doo ko naan mu ni ma booy yow ni nga garaawe ma ne ko comme kafe gi mënta dem bàyyi suukar si te kuddi gi mooy islaam nañu ànd rek bokk ndey ak baay ba aljanna kon nag yal na yàlla dolli sutura ak kaaraange ñu nuyu euh, président nag Moussa Diop du ma doon wax léegi yow incha dama lay jël ci sama chaîne bi Pape Malick Mbaye TV nga xam ni lépp lu xewati ci xadara bi incha allah yaa koy félicité te na ko tàmbali sax ndax le 6 bii di ñëw ci la 100 pour cent bi di def suñu réunion pour waa waajal gàmm gi 100 pour cent bi danaa ci leeral waxoon naa ko ndax man euh, yàlla dafa def taalibe laa bëgg a doon te taalibe gi xaw ma ndax yàlla nangu na comme déet maa ngi ci yoon wi daal di jéem. te damay faral di wax ni taalibi du am taalibi eh, léeg-léeg sax nit ñëw ni ma may ma werd damay bañ dama ko yóbbu ci Cheikh Tidiane wala dut kenn ndax man taalibi rek laa bëgg a doon eh, eh, bi ñu ma waxee cent pour cent bi dama bañoon sax ndax dëkku kilifa difa dajale mbooloo day xaw a doy waar waaye bi ma demee ba jamono joxuma ko nag laa ko nangu mm. ma xam ni nag am na ñoo xam ni tey ji ña ngay fanaan ca Sorano di pàkkar ñi ba fajar te ay soppe diw lañuy doon damay bañ a tooñ wala grand théâtre moo tax ma ni rek naa ko nangu comme ñun yonent bi sallallahu alayhi lañuy sallam liggéeyal ñu nangu ko man ak yéen ñu ànd ba aljanna ma leen di wax nii ñoom Mansour ni leen mutahabina ba fa nekk bu soxlaa cent pour cent bi soxla su ma leen woowee ñoom ñu soxla leen na ngeen bàyyi li ma leen wax ngeen dem ci ñoom ndax balaa dara ñoom la woon même euh, action daara ji itam noonu bu ñu soxlaa na ngeen bàyyi lépp dem su ngeen demee nag ba kenn soxlawu ci cent pour cent bi soxla ngeen ñëw loolu laa wax ca néeg ba te waxaat naa ko ci rajo bi ndax àdduna dafa doy waar yàlla na yàlla barkeel ci barke Seydina Muhammad moo tax bi na it ñoom it wax digg yàlla xale yi wax nañ ma ni dañoo uuf cent pour cent bi ndax lu ñuy def rek woo leen ni leen yéen la jiital leen ñu jàppale leen fa tabarakallah kontaan nañ ci bu baax a baax a baax nuyu bu baax alxaaji Modou Mbeng du dem nga ziyaar yi wala aji goo waaye yàlla na nga dem aji ci barke Seydina Muhammad suñu xarit la suñu frère la suñu lépp la xam naa su ma jógee fii rek danañ waxtaan ndax léeg-léeg xaw a gëj déggante ci téléphone fekk dañuy daje rek ci programme yi ma ne fii mu ne fee loolu rek la maa ngi jéggulu nag nuyu xaaj Mansour nger fa tabarakallahu nuyu buy di wàdd nga xam ni moo nekkoon ci micro central bi xam naa daa dem kër dut kenn ndékki fa ba ndékki la ëpp yal na yàlla taxaw ko moom itam nuyu Abdoulaye Wade di président waa Njëgëj nuyu Mor Diop bu meewaan fa tabaarakallaahu ñu leen di ziar bu baax nuyu nag daam Mansour mi doon wax daam moom xam naa ni mu baal ma waaye ku bari affaire la baax ak ki doon toppandoo Serigne Cheikh anamu ah di ko yàlla yàlla fay la yow tam maa ngi nuyu nag wax dëgg yàlla Mansour Wade mi ngeen tàcc ko bu baax ndeysaan moom daf ma sopp yàlla xam na ko te cofeel dafa foor li may wax sama sopp yi ma ni leen yéen mënuma leen a fay ndax xol ni mu soree bu la fa nit defee kooku mënatoo ko fay te sama loxo bii li may jege jege mënuma koo def ci sama xol kon bu nit ubbee xolam yàlla dugal la ca kooku mënatoo ko fay ngeen ñaanal nu rek li ngeen gis ci ñun ba sopp ñu yàlla na ko yàlla yokk waaye bu mu ko wàññi mukk ngeen ñaanal nu itam ñu bañ a gis sunu bopp ñu bañ a tiitaru ndax tiitaru baaxul dama koy wax lu bari boo taxawee sama buntu kër ca buntu ndeyjoor ba soo taxawee dangay séen fanu denc sam papa nga séen weñ ga nii da koy séen étoile ba heure bu ma xoolee lool rek ni ah, man daal waruma tiitaru ndax ki tax ñépp bëgg ma mu nga nee ñu def ci bàmmeel nga xam ni yàgg yàgg dañu koy fekki kon yàlla bu ñu tiitaru yàlla bu ñu ëpp nit ndax jamono dafa doy waar dafa am bis ma dem ci benn dëkk ma woy ba noppi benn waay ne ah, neexul ba neexul nag waaye caat màgg na ma ne ko waaw caat màgg na waaye daa am kilifa te incha damay ñaan yàlla am kilifa ba keroog may dem ngeen ñaanal nu yàlla bu ñu gis suñu bopp waaye li ñuy liggéey yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad sallallahu wa sallam الشمس والخمر المنير